Xibaar 24 TV yaakaar naa ni invité bi xamee ngeen ko honorable Mara Diop Ousmane Mara Diop euh, nekk un jeune bu yëngu si politique di conseil économique social environnemental un proche du président Macky Sall ñu fas seen waxtaan ak moom ñu ngi nag Touba parce que fii tamit dëkkam la euh, si situation réew mi mais <laughs> ñu bari jàpp na ni nag bu ñu waxee situation réew mi xëy na politique bi moo ko téye déedéet dama bëgg fas seen waxtaan ak moom si bonk yeneen parce que moom nekk benn. artisan wala défenseur du président Macky Sall da koy défendre toujours sur côté réalisation mais Mara est-ce que réalisation yi ñu gis ni les infrastructures moo taxoon ñu fal président Macky Sall jàppoon yi am na yeneen tamit urgence muy le panier ménager ñu ñun dañuy bëgg lekk bëgg dund di fay location xale yi am liggéey yooyu tax du ngeen ci wax. jërëjëf maa ngi nuyu téléspectateur yu xibaar 24 yëpp. di leen sant di leen gërëm ci opportunité bi ngeen ñu may pour ñu toog ak euh, askan wi. wax à travers ci réseaux sociaux yi. mu convaincre ñu bare bare bare bare. di sant di gërëm Babacar yow mi nga xam ne yaa nekk ci. bopp bi waaye ngeen may ma tuuti ma rendre hommage ndax bu ñu ne. Hmm. Euh, weer wii ñu dem xel yëpp dañuy dem Poroxaan. Hmm. Euh, soxna maam jaara doonoon jigéen joo xam ne euh, ku ku ku taxaw woon la ba lii nga xam ne tey yoonu euh, lislaam am na ko du ma ne tarixa murit mhm. am na lu bari lu mu ci contribuer kon mhm. donc ñu ngi ñaan sëñ Muntaxa na ko màggal ay ati ati at di ñaanal sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy suñu bunt mhm. ci kër sëriñ Touba yàlla na ko yàlla dolli kattan. maintenant sama question dama koy relancer waat mooy dëkk bi <laughs> nekkul taleek tabax rek mais biir bi si la. waaw dund gi yemb gi si la. d' accord d' accord naa ci li nga wax mais danga wax lu am solo. muy dund gi. Hmm. tey <clears throat> nga xëy na yaa ma ko gën a xam yaa may laaj question bi mais am na lu bari bari loo ci lu nga xam ne xam nga ko ci. ndax président Macky Sall bi mu njëkkee ñëw toog dafa am lu mu xeex ba am ci résultat bu am solo du ma ne nag am na ci résultat boo xam ne à cent pour cent parce que bu ñuy wax dëgg rek am na loo xam ne amuñu ci cent pour cent amuñu ci quatre vingt pour cent mais nag soixante dix soixante quinze pour cent war nañ ko ci mën a am autosuffisant en riz ak yeneen yi mu delloo nit ñi ci bay mi delloo nit ñi ci askan wi ubbi tool yi jox euh, agriculteurs yi ay machines jox agriculteurs yi ay ay ay ay jiw yu doy sëkk tey loolu bu ñu ko xoolee li mu ci doon def booy tàmbali ci nga xam ne ñii ca Senghor nga ñëw ba ci ab du Diouf nga ñëw ba ci ab Wade boo dikkee ci Macky Sall daf ko doublé. fi ñu fekk baax muy si région Diourbel. boo gisee effectivement man sama papa. non trois mois donc la ñuy gis la ñuy dem toog. instant yi nii àll bi dara new fa. waa effectivement parce que da euh, dafa am loo xam ne président daf ko daf ko daf ko joxoon vision ndaw ñi tey dama jàpp ne tey. boo demee Colobane ña nga gis ñu fay nekk ñëpp ci région de Diourbel ñenn ñi ci région de Diourbel la ñu da président taxaw seetoon bàngaas yi nga xam ne yëpp dañu daa financé ndaw ñi man dama bokk ci conseil de la jeunesse. bokk it ci yeneen kuréel yoo nga xam ne dama xam li président doon def ci ndaw ñi. mu dajale ay ponki financement yu baaree baree bari def ko am pèse wëlbatiku loolu dajalu doyut mu indi mu indi dafa échoué ah. <laughs> non bi mu bi mu d'accord ci côté d'accord naa ne am na à cent pour cent amuñu ci résultat. Ah. mais nag am na ci loo xam ne nag am nañ ci résultat tey bi mu xoolee ANPEJ doxut indi na DER. DER pour les militants. de non pas DER pour les militants ndax DER toog nga ba tàyyi gis ñoo xam ne dañ doon ñi président de la république bénéficier wu ci DER man ndindi gi ma dëkk tey ma gën ko maîtriser. mën naa la cee wax loo xam ne nii tey boo demee mën nga gëstul sa bopp financement DER am na ci ñoo xam ne ci PDS la ñu bokk am ci ñoo xam ne ci opposition bi lañ bokk kero ba ñuy déposé dañoo jàppoon ne test lay doon pour ñoom waaye tey ba tey ca lañ yor seenu njaboot. amee ah, jeune Sénégal. donc loolu initiative la boo xam ne président moo ko créer boppam ci biir mandaam. tey jàpp ne tey askan wii nga xam ne mooy ndaw ñi. indil na leen uti boo xam ne nii tey bu ñu ci sukkandikoo lu bare bare mën naa résoudre. mais plus de cinquante pour cent ay jeunes lañu. jeunes jeunes ñoo ëpp. noonu rek. mais jeune bi dama jeunes yooyu dama leen di gis dañuy jàmba toujours moo taxit ñoom nee noonu dañoo dem ànd ak seen moroom jeune bu ñu bi am fee Kër Massar la plupart nekk c'est des jeunes. Mmh. jeunes yooyu ñooy toog naan xëy amul. Mmh. dañoo sonn lii na fi jóge na fi régime bi jóge kon yéen jeunes ngeen financé. bul fàtte ne bul fàtte ne bul fàtte ne ñun bi yàlla dénkee le ministre Dame Diop ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ci cabinet laa nekkoon donc xam naa bu baax a baax a baax a baax emploi des jeunes lan la ci président Macky Sall la def gis ngam réew du caageenu quatre-vingt pour cent yëpp mën nañ leen wutalum xëy état mën na condition yoo xam ne nii yow ndaw mi boo ci toppee ci condition boobu sa xel dina dal ba nga man a am xëy di fay say morom. exemple yan condition la état tey mën naa la wax ne DER bii tey. Hmm. bu président indee outil financement. yow sa jëmmi bopp nga am xalaat ne man naa ubbi entreprise. Hmm. président naan ne ah entreprise boobu ngay ubbi day xëy na amoo dooley financement. demal fonds yëpp déposer sa sa projet ñu wutal la garantie ci banque bi nga wëlbatikuwaat nga ñëwaat. boo dikkee ci ministère de l'emploi am na ci direction de l'emploi foo xam ne nii tey dañ naan la kat employabilité bi nga am état mën na la cee jàppale muy convention état emploi président def ci lu am solo tey convention boobu ngay dégg ñu bari xam nañ ko jeunesse bu yu bari yoo xam ne ay entreprise lañ xam nañ ko ah, may may ma àggale foofu dafa am solo ci nan lañ lay yombale pour nga am xëy mi loolu yëpp état teg na conditions yi boo ci laar rek boo demee ci biir direction de l'emploi dinañ la orienté ci orientation boo xam ne nii loolu wax nañ ko waxati ko waxati ko je pense que ne communica euh, télévision yi sax communiqué nañ ci mais nag jeune ba nga xam ne dafa toog ci ci ci ci ci téléphone am yor téléphone am di manipuler pour xool g xbes wala g lenn rek kooko pour nga wutal comme xëy c'est difficile état mënu la fekk fii nga toog mu ne la jógal kaay woo man la yóbbu la jox la mu xëy yow yaa war a yow yaa war a def effort boo xam ne gëstu outil yi état teg pour ñu mën la wutal porte de projet boo ko doon xayma tey si biir jeunesse bi daanaka danga naan un pour cent la pour cent la bala ngay am projet day fekk nga am formation boo xam te ne dafa défini domaine boobu nga maîtriser ko pour war a mën si liggéey par exemple maa ngi jàng euh, électrotechnique dama si def projet bu fekkente ne am na am si liggéey su ma jàngee restauration loolu su ma jàngee leneen loolu waaye li ma gis sànq sa ministre so ex ministre sa collaborateur sa xarit muy euh, dam Diop je pense que bu doxoon président du ko wàcce centre de formation yi nekk Sénégal yëpp boo xoolee ñi ngi former xale yi. Mhm. mais du am suivi. du am suivi mais mais gis nga loolu nga wax noonu man je pense que ne centre de formation professionnelle yi nga xam ne pour président dikkee ñaata centre de formation la fi bàyyoon lu néew la. tey booy xool département boo dugg centre de formation ba bu parewut quatre-vingt-dix pour cent pare na quatre-vingt-dix pour cent matériel ba ñu ngi ko commencé def tey ndindi gi ma dëkk man suñu centre de formation. Mhm. ñu commencé nañ année bi ñu ngi ñu ngi jàngale. matériel bi ñu ci def rek plus de trois cent million donc du caageenu ko ne ministère bi moo amul résultat déedéet xale yi ci boppam ñoo ñoom lañu ñoom ñoo war a jógaat. xoolaat seen bopp conscient ñu war a mën a dellu ci li nga xam ne nii tey ëllëg ak si biir war na leen a mën a jariñ te benn politicien war leen. dinaa a yow parce que man bu bu bu bu baaxee dama naan baax na parce que li ngay wax nii dama mës a seetlu ñu ne am na benn village bu nekkoon côté Fouta. Mhm. dañ fa ubbi centre formation professionnelle. Mhm. ñu fay jàngale affaire affaire poterie yi di liggéey si affaire ànd yi. Mhm. ak affaire ndaa yi. Mhm. waa gox ba doon wax ñoom jomb doon def loolu. effectivement da ngay xool kayal kayal gii. ubbi nañ fi mhm. centre. Mhm. dañ koo mujj tëj parce que waa kayal dañu wax ni ñoom. effectivement duñu formé si wàllub ñaw ak wàllub xëy na affaire structure métallique. te et puis wàllu weñ. mu mel ni benn côté xale yi. amaguñu culture boobu ak seen parents yi aussi tamit. da leen ci jàppalewul. waaye est-ce que état du changer démarche. changer démarche si bi mu insérer a weesu. nga jël nga jël formation professionnelle yóbbu ko ba ci daara alxuraan yi lu am solo ngi noonu tey boo gisee discours président. Hmm. ci 31 euh, bi passé da nga gis ne bëgg nañu changer jikko yi changer xalaat yi changer dem mentalité yi ba daara alxuraan yi nga xam ne musuñu leen a considéré président da leen a delloosi tey nga xam ne kii bu wàccee alxuraan li may wax xam nga ko bu baax. amul benn xam-xam boo xam ne nii budul xam-xamu alxuraan bu ko mën a servir pour ëllëg bu ko neexee mën na dugg ci centre de formation bi loolu ku kawe gis-gis moo ko mën a am parce que xam na ne ñii di jàng alxuraan ëllëg ak si biir war nañu mën a servir seen dëkk wala ñu mën a servir seen population ëllëg loo xam ne nii ka doon jàng na bu du dem ci ka jàng nasaraan mu dem. di ko ñëw waxuma sax chômage chômage bu tubaab tuwaab bi nga koy tuddee ku am diplôme amul xëy. Mhm. waaye am ñoo xam te ni amuñu diplôme formé wuñu leen amuñu xëy ñooñu li ngeen def si ñoom. mais ñooñu ñooñu ba tey président am na lu mu leen fàggul loo xam ne mi ngi ci biir formation. mi ngi bëgg yéex de mi ngi ci. depuis depuis 12 ans bi mu toogee xam nga on a un problème nag. Mhm. vraiment te j'avoue que dinaa dina man nañ ko wax parce que du lépp moom na leen un problème de communication. yéen waa waa waa waa mbokk yaakaar nguur gi ci boppam naa am na ci benn côté boo xam ne am nañu problème mu communication. Ah. duma ko nëbb noo c'est c'est la réalité. parce que li président non c'est pas Abdou Karim Fofana c'est pas Abdou Karim Fofana li président di def. ak initiative bi président di jël. ak gis-gis bu kawee bi président am tey dama jàpp ne tey waratunoo mën a toog ñun nguur gi ci suñu jëmmi bopp. naan sunu initiative xale bii kat amul information bi ci lii wala xale bee amul information boobu ci lool bu ñuy waxtaan rek wax dëgg ca la. xëy ndaw man est-ce que échecul man jàpp ma ne xëyu ndaw yi échec. xale yi ndax xëyu ndaw yi li ci président def. lu am solo la. te amul benn commune booy dugg te président te te gisoo sa bopp ci xëyu ndaw ñi commune bépp boo ca dugg rek da nga ca gis sa bopp. ci xëyu ndaw yi la mu tax nanguwuñu dem ci xëyu ndaw yi boo demee dal naan la kaay nga euh, arrosé. ay garab si autoroute bi ay métier benn métier kenn du ko xeeb y' soo pas de sot côté nga gis benn jeune APR yor loolu ak loolu te liggéeyul di sañse di faj soxlaam te kaka kay jox xëy na euh, moom mooy leader am est-ce que loolu taxul tamit xale yi xaw a découragé. xëy man man man d'accord ma ci côté boobu. benn jeune APR yor loola ak loola bépp jeune APR boo gis mu yor yenn fonction yi wala mu yor yenn. puissance bi dafa am lu muy liggéey parce que it ñu ci bari xam naa leen nag vraiment ñu ci bari nag ñu ngi leen di ñu ngi leen di bàkkal foo xam ne jàpp naa ne yeggunu foofa. parce que déedéet non du question politique non chargé de mission yàgg na ci état. chargé de mission c'est pas ci euh, euh, ci Macky Sall ci pouvoiru Macky Sall la amee chargé de mission yàgg na fi. mais rupture ngeen wote woon ngeen jël rupture boobu. président daf ci def lu am solo. tey boo xoolee ministère yi ci boppam. amul benn ministre boo xam ne li nga daa am ci dotation carburant yaa ngi koy am amul benn ministre boo xam ne sa téléphone phonique sa téléphone portable liñ ci doon dote ci crédit yaa ngi koy am am na ci ñoo xam ne tey dañ lay woo ba yàgg seen crédit dagg ci un ministre de la république teg naa ci bët gis ko gisati ko donc loolu loolu noon loolu c'est c'est la réalité c'est la réalité président euh, rupture bi mu wax daf ko incarné ci ministre yi yu ci bare bare bare ba wàññi lu bare bare bare ci ñoom dëgg la des fois faay dina am ci yenn yenn yenn ministères yi dama koy d'accord mais nag rupture bi nga xam ne président woote na ko te di ko doxal man gis naa ne ci loolu rupture boobu mi ngi fattaat ay bunt yu am solo yoo xam ne nii bu ñu leen ne lii ci li nga xam ne économique réew mi la ñu ko jël économique gouvernement bi la ñu ko jëlee da nga naan mun ta ñëw si côté bi ñu gis ni dund gi dafa cher donte sax daf ngeen ay mesures yu ngeen jël mais gars yi respecté ñu ko ñu gis ni location bi également dafa cher ñu gis ni carburant bi dafa cher te yooyu noonu nit ñi mooy seen base dund jërëjëf wax nga question bu am solo dañu toll ci réew mi moo foo xam ne adduna bi yëpp moo am crise bu ñu jàpp ne ñun Sénégal rek boo xoolee crise bi li ci gouvernement bi def dama jàpp ne benn réew bu nekk ci àdduna bi deful effort bu mel noonu ndax tey ñu jub ci Covid dugg ci guerre bu Ukraine bi nga xam ne kay kenn ku ne jàppoon na ne guerre bi du la du la touché mu ñëw ba touché ñu ñun ñëpp réew yëpp donc activité ya ca président def ak sociale ba ca président def wut ay moyens yu am solo dote ko gouvernement bi ne ko na dem ci askan wi loolu je pense que ne lu am solo la. tey de lekk ñu. waaw yaa ngi fàttali rapport bi Sénégal daa mën a xewal fàttali rapport bi waaye rapport bi la ñuy suliwaat. <laughs> non de rapport bi man je pense li ma ca daa wax moom laa caa daa wax gis nga président Macky Sall ku ko xam xam ne fépp fu mu teg lenn ne na dem ci askan wi ku ko ci defut ci askan wi mu rëq sa ndigg kooku moom fii laa yow mi diini ñëpp ca yam. dëgg la ak mais ak de ak nit ku ci man di doon mu jox la confiance des fois da nga gis ñu ne. ministre sàngam dafa mer ma ngay ma ngay ma ngay ma ngay njaxtu nangam ma ngay ñaxtu nangam la ca biir du la ko wax parce que dana xool benn ministre mu ne jàpp ne ministre bi kat ah xëy na sama sama nit la xëy na politique am na lu des wala politique def na nii naa ko teg nee en attendant mais am na ci ay ministre du ma ne ñëpp de. ñu nekk en déggoo li ma la wax am na ci ay ministre président woo leen dàq leen la tax ñu dàq leen duñ ko wax. am na ci ñoo xam bokk ci non da kooku bokk ci ah <laughs> kooku bokku ci ndax man damaa dama dama liggéey ak moom xam lan la taxawu président xam fan la féete président xam ne moom li mu daa incarné démb daf day wax ne président sama post de responsabilité bii bu ko beneen ministre soxlaa te kooku munu koo ñàkk man mën naa ko koo jox nga toog nga nga du yàq ci sama loyauté teeg sama digganteeg moom dara kooku xamee naa ko ci moom. ñu bare waxoon nañu ni président comme que da ko seppi dafa war a maire dafa war a génn parti bi waaye moom boobu ba léegi mi ngi teg tekkaaral Dame Diop. bul fàtte ne biñ biñ ko ñu ko biñ ko biñ ko biñ ko biñ ko dàqee. ñu teg ci lu toll ci fukki fan ak juróom man tëgg naa mini mitin boo xam ne nii ñu bari fekk nañ ko. ñëwoon na fa. ñëw na ca mitin ba la mu ca wax lu ma kontaan la lu ma fier la àndewuma ak président post de responsabilité. parce que la heure suy tëgg dara dana ma boole heure guy wax dara dana ma ca boole man loolu rek laa nawee daam Diop très du leneen. voilà honorable ñu ñëw nag si côté euh, infrastructure loolu moom jàpp naa ni <laughs> moom ngeen di bàkkoo jam ñaajo autopont yi euh, terre bi BRT bi parfois sax ngeen di Ila Touba bi fa ngeen hôpital Touba bi maanaam yooyu noonu. dëgg la nit ñi ngi koy gis. <laughs> mais la muy jural réew mi te payu mbor ëllëg ay génération di koy fay est ce que bàyyi ngeen ko xel. parce que euh. bu fàtte suñu ay entreprise nationale yi defar ñu ko benn. Mhm. étranger yi ñoo ko defar ñoo tegal ñu seen ay conditions labal ñu ko surtout. Mhm. te suñu ay xaalis gerte gi sama yaay di jaay ak fonde bi yaay kii di jaay la ñuy boole jox leen ko. Mhm. est ce que ñun kon suñu génération dinañ si am dara ëllëg. Euh, bul fàtte ne réew mi fi ëpp puissance. buñ ne Amérique Chine France am nañ ay bor. amul benn réew boo xam ne mënal na sa bopp à cent pour cent la ngay soxla sa bopp à cent pour cent nga mën koo jël sa gafak ak bopp dem defar ko bu boobaa lii ma la lii ma lépp doo ko mën parce que am na ay priorité muy santé tey bu fekk ne hôpital Touba bii biñ koy biñ koy defar nga gis ne tey hôpital la boo xam ne nii adduna bi yëpp tey Sénégal gépp amul benn matière boo di soxla ci wér gu yaram te boo duggee hôpital Touba doo ko am mais initiative bu mel noonu gis-gis bu yaatu boobu nit ki bu ko amee bu jaree nga di koy jëggaane di ko lebi di ko indi doo ko defal askan wi te askan wi nécessité la ci askan wi mais Ila Touba gii tey nga wax nii léegi muy doon initiative mu doon gis-gisu président Macky Sall boo xam ne damay fàttaliku Cheikh Sidi Moukhtar yal na ko yàlla yokk leeram keroog bi président Macky Sall di ñëw si di Moukhtar mus na jóg di dem di teg ay pose première pierre. waaye keroog bi ko bi mu leeree Ila Touba bi mu gis ne gis-gis bii président Macky Sall def ah, defalu ko askanu Touba popula àdduna bi yëpp la ko defal moom moo ne moo jógal boppam dem pose première pierre bi la muy xat xat xat xat lépp ndax kenn ku ne xam ne bi muy nekk ci xalifa ku xatoon la gis-gis boobu da ko ànd ak président dem woo Cheikh Bass woo sëñ sëñ sëñ Mountakha woo sëñ euh, sëñ Sidi Abdoulaye ànd ak ñoom dem def pose première pierre bi ñu bari doon wax naan du àgg ñu bari doon wax naan ay ay ay wax ra rek tey xoola Ila Touba bi njariñ lim ñoo amal ñun Touba ñu bari tey économique rek li mu ci li mu ñuy ciy jural parce que infrastructure yu mel noonu day day day day joué ci économique dëkk. Mhm. day joué ci économique réew. tey réew bala mën a mën a dox dëgg dëgg dëgg da ngay gis grandes infrastructures yoo xam ne nii tey dalay lay leer ne aéroport yi da lay leer ne hôpital yi da lay leer ne Ila Touba dalay da lay leer ne euh, euh, comment dirais-je euh, train bii nga xam ne tey mi ngi koy mi ngi mi ngi mi ngi ci am am gis-gis bu kawe ndax diggante Mali ak dakaar dafa doonoon loo xam ne lim daa jural Sénégal dafa am solo mu avancé ci lu am solo. Dakar Bamako Dakar Bamako bi. tey borom gis-gis bu mel noonu nit ñi dañu war a fàttaliku bu ñuy fal président de la république lu tax ñu di ko fal du caageenu dañuy fal président de la république mu yor ci rajo yi toog naan danaa def nangam danaa def nangam loolu moo nu tardé loon tey booy xool ca jamonoy Senghor effort yi président Macky Sall def bu ko jamonoy Senghor defoon waxuma la jamonoy Senghor rek mais ab Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade rek bu ñu ko defoon tey boo boolee ñoom ñetti ñëpp la ñu def ci wàllu courant la ñu def ci wàllu yoon la ñu def ci wàllu hôpital la ñu def ci wàllu euh, école yi ñu tabax la ñu def ci wàllu infrastructure yu mag bi Macky sàll dikkee da koo triple te loolu sénégalais yi mën nañ cee xipp teg ci seen bët loolu la ñuy doyee président de la république fu gis-gis boobu lañ jàpp ne tépp koo xam ne nii tey ñi ngi xool am réew ñu di fal président loolu lañ lool lañ ko yaakaaree. voilà mais tamit luubal gi bare na scandale yi et yi nga def projet yoo xamante ni. ba bala ko Sénégal di moom na toogaat trente ans quarante ans ban sens la am. entreprise nationale yi. mais bàyyi ah, leen fi dem jë jéggaane ñeneen aussi tamit. te ñun mën nañ ko. dama lay dama lay jàppoon yi. Mhm. xam nga Amérique américain ko defar. Mhm. France France yee ko defar. Mhm. mais ñun bala ñuy mën am dara foog ñu dem jéggaani du man sax xëy na jéggaani baaxul. mais quand bu fekkente ni sans entreprise jël la quatre-vingt-dix yi ñu nekk ay entreprise nationale. Mm-hmm. loolu tamit dafa am lu muy yàq parce que xale yi danañ leen mën a jël mais ñee bu ñu ñëwee seen ay doom la ñuy jël boo demoon tey jam naa ñaan fa nekk mm-hmm. ay doomu turc wala ay doomu sénégalais ñu ngi fi ëpp yi ngi fi ci loolu nag ñu bari ñu ngi ciy lëre ñu ngi ciy naasee erreur lu bare bare parce que noonu it euh, entreprise locale yi bu ñu sañoon liggéey bu am ci réew mi ñoom lañ koy jox quatre-vingt-dix quatre-vingt cent pour cent laa wax mm-hmm. mais nag da nga gis entreprise locale boo xam ne da koy jox benn centre de formation nga jëlub turki jox ko benn centre de formation turki ba centre de formation ba dana pare ba mu sumbaat yeneen te entreprise locale bi du pare loolu it nañu defaraat ñun entreprise locale yi nga xam ne moom la ñu moomal suñu bopp nañu defaraat jikko yi suñu jikko yi ci côté boobu beneen bi ci des amul benn entreprise internationale buy ñëw fii te la ca ëpp sénégalais yi man ko moom lañ ko koy jox hmm. à chaque fois que sa entreprise yeneen jóge ci bitim réew ñëw fii la nga xam ne sénégalais yi mën nañ ko fa du ñu ko jëggaani sénégalais yi lañ koy jox. voilà xëy na ci tur dañ naan kat entreprise bi internet vale la dëkk dëkkul ci réew mi américain yi la wala français yi la waaye bu ñu ñëwee ci réew mi li nga xam ne dañ koy liggéey te sénégalais yi man ko sénégalais yooyu lañ ko jox wax ba loolu mooy seen priorité. waaw ma gis ni dëgg la jëm naa yéen a ngi fay liggéey sànq maa ngi dégg directeur euh, bu yor wàllu marché international bi ci télé bi. muy wax mhm. naan euh, nii am nañu jafe-jafe ndax ay. magasin kenn jëlu ko. Mhm. effectivement mhm. accès ba métti na parce que amuñu tali bu baax. Mhm. léegi cinquante cinq milliards nga mën nga def ko si benn marché d'intérêt international pour les gros porteurs. ba pare la nga bëgg amoo ko. camions yooyu ñëwuñu. ñii indi marchandise yi ñëwuñu est-ce que loolu tamit du yàq bu xaalis. cinquante cinq milliards. non loolu loolu jàpp naa ne du yàq xaalis. ndax tey. Hmm. jam Diamniadio dafa nekk en phase boo xam ne nii tey dañu koy développer te pareegul. bu ñuy développé te pareegun tey la nga xam ne nii boo ko wàccee ci jam ñaajo parce que it responsabilité yi dañ koy partagé xëy na am na ci loo xam ne responsabilité état la parce que boo defee benn magasin bu mag war nga mën a defar tali ba mu dugg ba ca biir. Hmm. loolu je pense que ne mën nañ ko partagé mais tey nag bu ñu la yombalee la ngay dem nga luyee ko benn ci biir Dakar benn stockage boo xam ne da nga ko luyee cent mille. nga ñëw jam ñaajo état war la koo mën a wàññil ba nga xam ne doo mat cent mille yooyu yaa war a xam ne tey la ngay paasaat di ko kii parce que ñu ci bare bare bare du ma la ko du duñu toujours dama lay dañuy faral di wax ne suñu jikko yi la ak xeebante nañ suñu biir loo xam ne nii tey bu mën nañuy indil jafe ji tey bari na ci ñoo xam ne am nañ seeni dépôt biir Dakar soo leen waxee ñu ne ah ñun kat du ñu dem jam ñaajo di ko wàcc suñuy bagage te ñu am suñu dépôt biir Dakar mm-hmm. loolu it ça reste il faut que état jël ci ay mesures yu mat sëkk ba nga xam ne conditions yi nga xam ne dañ leen koy te kii seen entrepôt yooyu nga xam ne am nañ ko biir Dakar ñu seet leneen loo xam ne moom lañ ko defee. waaw ñëw si beneen côté si xëy na wàllub euh, euh, jokkalante entre dëkk dëkk muy diplomatie Sénégal euh, président Macky Sall am na benn dimension xëy na bu yaatu parce que mooy président wu Union africaine mais tamit ñu Sénégal daanaka si ay colloque ay sommet ay conférence lu si bëri si Afrique fii la ñu koy defesee. ñun Sénégal googu noonu dañu am benn président boo xamante ni bëggul wujj de Karim Wade Khalifa Sall ba si Ousmane Sonko bii. Mhm. ñoom ñëpp présidentiable loon mhm. mais day dagg seen tànk. est-ce que Sénégal wane na yoon wii est-ce que wane li tax gëdd gi ko yeneen état yi jox mu ngi si moom parce que lu am si Afrique daanaka fii la ñu koy defee jëm jëm ñaajo président Sénégal boo génne ñaan Macky Sall Macky Sall te boo ñëwee si biir réewam am na lu ko doy sëkk. Mhm. loolu tamit jarul waxtaanee. Euh, wax nga nag question bu am solo boo xam ne sénégalais yi ci boppam war nañoo jàngataat ndax tontu nga question bi ci sa biir wax ne nga some yu mag yu bari Sénégal lañ koy defee dëgg la Sénégal lañ koy defee lu tax ñu di ko defee Sénégal loolooy question ba. parce que Sénégal am na stabilité. effectivement modèle de démocratie la waaye nag. effectivement modèle de démocratie mënut a weesu. ah ñi bëgg wàcc yoon wi. déet modèle de buñ buñ ko doon bëgg a wàcc yoon wi da ngay gis bu ñu fi defee benn sommet international ba réew yëpp war fee daje. déwén président de la république yu Afrique yi am nañ way ak matuk ne président Macky Sall mii ginnaaw nu jiite te lii nga xam ne mi ngi koy doxal doxalu ko cëm réewam nañu ko bàyyi dem defarewaat beneen beneen defarewaat ko beneen dëkk parce que il la président mais nag ci kaw kàddu ñépp lay àndandoo la muy def ñu di ko defandoo muy président yépp da nga wax wax bu am solo nga ne président yi bi bëggul wujjam d'accord ma dool ndax dangay seet kenn ku ne ci lan moo tax ak fan lañ la jëlee ak lan moo tax ba mënoo mënoo jàkkaarlook sénégalais yi wax laa réalité li am Karim wàdd man ci PDS laa bokkoon bi Macky Sall génnee laa génn kenn ku ne xam na ne diggante Karim Wade ak président Macky Sall wala diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade bu ñu leen bàyyeek seen sago rek jàmm rek moo ca am parce que Macky Sall munut Abdoulaye Wade yar ko ba mu toll fii mu toll Abdoulaye wàdd jox ko cër. tey mu toog ab lay wàdd di yéene lu bon Abdoulaye Wade. <laughs> ku yée ku ko ku non non non am na am na am na am na déedéet déedéet déedéet am na am na wax boo xam ne <laughs> euh, vraiment ñun Euh, mooy suñu langage démb. lu coow li bari diggante laay Wade ak Macky suñu langage démb boo xoolee suñu rétroviseur. Ah. moom la ñuy wax dama xam kan mooy président Macky Sall. bi ñu koy tëj trois ans daan ko défendre effectivement parce que bi ñu koy tëj trois ans lan moo tax ñu tëj ko trois ans c'est pas Macky Sall moo ko tëj trois ans parce que it dafa am fu réew mi toll woon foo xam ne nii tey. dañu jàpp ne la ñu doon wuti wër lañu la ñu doon wuti dé ca bitim réew am nañu ko fi yor ñoo xam ne mi ngi ñoom te ci réew mi la ñu ko jële demande sociale woon si yow ko. askan wi yëpp koo ci waxoon danaan mankat jàpp naa ne li président Macky Sall li li li li nguuru état c'est pas le président Macky Sall bu ñu jàpp ne Macky Sall toog na ba am na benn moment mu ne wax dëgg yàlla am na loo xam ne. ñun ci suñu askan wi bu ñu ko jëmee kanam da la mu ñuy ëppal moo ñu moo moo mooy ngeen parce que fekk lañu ci moom dara déedéet bul ne fekk ñu ci moom dara ndax it euh, dossier boobu comme ñun làq nañ ko féete nañ suñu ginnaaw lu ñu du ñu xool ci suñu rétroviseur ci loolu dama ne président Macky Sall ak président lay Wade ak Karim Wade ñoom benn famille la parce que famille libérale bi la famille libérale boobu nag. xol Macky Sall contexte bi léegi xëy na favorable na si loolu moo tax ngeen bëgg ko soulever mais ñun toujours loolu lañ daa wax ñun daa wax ñu daa wax mooy que le président Macky Sall ak le président Macky Abdoulaye Wade amuñu réeroo man nañoo ñàkk am wuute gis-gis nag ci doxalinu réew kenn ku ne jàpp ne lii la war a mën a dox mais au fond réeroo du ci am. moo tax ndax ay libéral la ñu. moo tax rapprochement président Abdoulaye am na lu mosoon a wax dane bu sañoon. réew mii ñu nekk. libéraux libéraux yi moo ko yor pendant cinquante ans mm-hmm. soixante ans. Mm-hmm. c' est valable ci Macky ci président Macky Sall. voilà euh, ñu gis nii sa sa waxin daan yaa ngi insinué ni Macky Sall responsabilité boobu noonu yoon na aussi kon sa jamono Mimi moom moo nekkoon ministre de la justice xam da ngeen jàpp ni kon moom moo def loolu. complot bi kon moom euh, moom ngeen koy jox. Euh, foofu dinaa ci dinaa ci dinaa ci indi ay leeral yu am solo. Mm-hmm. ndax it ci moment bi nga xam ne président Macky Sall jël réew mi. def ministre te la justice Mimi Touré bari na ci loo xam ne nii tey ak ay ay ay ay procès yoo xam ne ak ay dossiers yoo nga xam ne Mimi Touré était dedans bu baax a baax a baax a baax même au sein de Touba gii ñuy wax ma xam ci lu bari nekkoon ci wetu xalif bi di ci doxe lu bari di ci waxe lu bari Mimi Touré bari na ci ñoo xam ne nii tey su pexoom jayoon mu jël leen jàpp leen te ay kilifa lañ ma jox la révélation boobu hmm? ay kilifa yu mag ci dëkk bii li doonoon gis-gisu Mimi Touré mu jàpp leen. ñoom lu def wala ah xëy na moo ko xam parce que bul jàpp ne Mimi Touré nit la koo xam ne nii rek day fayantoo jàppoon na ne képp ko doonoon xaritu Omar Sarr ca moment boobu li fi mu jaar ak Omar war na koo man a war na la mën a euh, indil jafe-jafe ba Omar ànd ca ba Omar Sarr euh, métti dool mais fu nekk daf koo jaar bu mujj président Macky la ko arrêté. donc problème mu justice ak opposition ak ñun ak ab Ablaye Wade du ma Masamba du Mademba Mimi Touré à 100 pour cent moom la. moo tax it bi ko président Macky Sall xamee xam ne fi mu jëmee ñoom soriwut da koo jëlee da koo jëlee ci ministère de la justice keroog ba mu ci jëlee ci ministère rappel vous bu baax a baax a baax keroog bi mu jëlee Mimi Touré ci ministère de la justice dossier yu bare ci lañ taxaw dossier na Sénégalais yépp xool keroog bi mu jëlee Mimi Touré ci ministère de la justice. dossier yu baree bare ci lañ taxaw waaye bi mu ko indiwaatee comme premier ministre dossier yu bare ci lañ déclenché waat parce que nit kuy fayonte la. nga bëgg foofu moom arrangé wul woon président Macky Sall. musta mën a am ñam nangoo arrangé président Macky Sall parce que jàpp na ne. réew mi pareegun pour teg président bu jigéen législative yi moo leen gañeen da résultat législative 2022 yi nan lay demee de législative législative au moins ngeen sargal jigéen non sargal sargal jigéen mun ta weesu nga jël sa sécurité réew nga jox ko jigéen tey bi ñuy nommé fii commissaire euh, ana ana ana ana ana ana commissaire ana biñ koy ana fay mm. biñ koy jox directeur de la sécurité mm. loolu mënut a weesu ci sargal jigéen ak jox confiance jigéen pare na ki euh, euh, ki comment dirais-je bi ñuy bi muy jël premier ministre di ko def jigéen mënut a weesu ci sargal jigéen côté boobu président Macky Sall ku ci sensible la mais nag toujours nañuy xool jigéen ñi ñu koy jox du jigéen ñëpp de am na jigéen ñu am gëdd am na jigéen ñu am dignité am na jigéen ñoo xam ne tey ku leen jox réew sax ñu taal ko. xanaa bi mu leen bàyyee mu ngeen wax loolu. du ca kaaseenu bu leen bu du caageenu bi mu ñu bàyyee. mais yàggul mi mu turee bi mu ñu mois moo doon simmeeku futteeku. dem fépp ah. échec bu nu am tey taux bi ñu am ci député yi. Mhm. ci législative bi su ñu jiitaloon bun jonn ñu am bu di diibul ba. borom 50 pour cent. bu ñu ko <laughs> jiitaloon bu ñu ko jiitaloon ñu am double ba su ñu jiitaloon. Mariama Sarr ñoo am double ba bu ñu jiitaloon Aminata Tall ñoo am double ba bu ñu jiitaloon keneen ak keneen ak keneen. Aminata Tall bokkatu si yéen. da da mi ngi mi ngi ci ñun ba tey mi ngi ci ñun ba tey en tout cas waxagul defagul déggoo ma la en moom waxagul jëfagul te mi ngi jëf mi ngi mi ngi wax ay nitam nañu jàppale président Macky Sall lool la xam ci moom. voilà léegi Mimi Touré euh, ngeen nangu nombal tànk député maanaam loolu c'est pas élégant même bu àndul ak yéen bàyyi leen ko mu nekk non inscrit euh, euh, foofu nag duma ci ànd ak yow ndax tey moom dafa waroon am ngor ak dignité bañoon a xaar lii président Macky Sall keroog bi nga xam ne nii président ab Abdoulaye Wade xam na ne àndatut ak moom bokkatut ak moom gis-gis dafa dem am grandeur def point de presse dajale mboolem loo xam ne PDS joxoon na ko jébbalaat ko PDS. la joxe mais kii parce que loolu loolu ci loolu ci ngor la bokk. loolu ci ngor la bokk. ah waaye tey déet si si déet si si ci ngor la bokk. ci lay insister léegi nga wax boo waxee. ci ngor la bokk ñu dem waaw maa ngi ñëw. ci ngor la bokk loolu ci ngor la bokk dama ciy insister. parce que en tant que président nga xool maire ni mu neexee. Mhm. nga xool député ni mu neexee. Mhm. nga xool leneen ak leneen ak privilège ya ngay am ca biir parti ba. nga am dignité na daman kat lii bokkatuma ak yéen gis-gis politique delloo naa leen ko loolu lu ko gën a gore. laaj naa la ko lu ko gën a gore waaye nag tey nga toog ne man bokkatuma ak yéen gis-gis tey bu fekk tuddoon du bennoo boo ko yaakaar mi Mimi Touré du dégg député bu fekk tuddoon bennoo boo ko yaakaar proposé proposé wuñ ko woon yóbbu ko ci liste Mimi Touré du dégg député na wër Sénégal gépp amul un pour amul zéro virgule zéro pour cent population bi. bu ko mën a may ministre député. on ñu avancé ñëw nag si. Yewwi Askan Wi mu doon opposition coalition boo xamante ni moom moom ñi leen sonale histoire du Sénégal jafe na coalition sonale ko mouvance présidentielle ndax ni ngi leen topp rek législative sax gis nga ñu leen yóbboo ardo daanaka assemblée parce que pour ngeen voter am majorité da ngeen kalangaatu si libéraux yi pour ñu mën leen jàppale moo tax ngeen def rapprochement tegg seen tànk pour leen neexal ak yooyu benn bu ñu mobiliser dëkk bi mooy loolu ñëppay génn jeunesse bi jox leen bopp nekk benn groupe boo xamante ni nag capitaine ba mooy Ousmane Sonko nee nañu moo leen tee nelaw ba ki dem euh, Kër Massar feesal na ko wala ko ay discours yoo xamante ni yéen ba léegi xam leen ñoom dañu indaale. nee am nañu te sama nee nañu bëgg wax ji ma sa jaar waaye xam nga nu ngi koy waxee <laughs> <laughs> mooy terme bi xew temps yi en tout cas a ñu pare pour xeex jàmmaarloog yéen pas Yewwi mais dans Yewwi yaa Ousmane Sonko de Pastef bu leen jaaxal loolu li ko waral ñu ni institution yi da ngeen ko yi da ngeen def kumba am ndey kumba amul ndey da ngeen ciblé un boo xam te ni dafa bëgg dem élection comme ni ngeen ko defee woon sànq ni ma la ko waxee ci Khalifa ak euh, Karim Wade. Hmm. on commence par Yewwi ñëw ci Ousmane Sonko. Euh, pense que ne Askan Wi dañuy politique. comme yéen. comme ñun ñun dañuy politique. Hmm. politique bi ñuy politique nag bokkuñu. parce que danañ ñun danañ wax dëgg askan wi. si ngeen ci dan ñun dañuy wax dëgg askan wi malgré ko lu man di xew président Macky Sall dana wax dëgg askan wi ay nitam dana wax dëgg askan wi beneen bi ci des mënuñu ñoo tee nelaw. jàpp parce que nag ab état bu foor la ñu nguur la ñu yor état bu foor lañu yor tey lépp loo xam ne jàpp nañ ne pare nañ pour loola je pense que ne ñun weesu nañ balaa ndax euh, damay dégg benn kilifa di wax ne. lii nga yor téye ko sàmm ko bu saay-saay jógee ca àll ba bëgg koo yàq lu mu la jaral lu mu lu mu ko jaral pour mu yàq ko na la jaral lu ko raw pour nga defar ko tey mobilisation yooyu yëpp ngay wax dama jàpp ne tey bu ñu dajalee seen benn trois cent trois cent trente million la ñu wax dugal ko ci département yi ndax keroog boo gisee la la fa am meeting national la meeting national bu ko Macky Sall defee stade mënu fa xaj suñu meeting national mënu ko faj léegi ñu def ne benn leader moo koy def yow gis nga ne li ñu def de déglu gis nga ne li ñu def ne gis nga ne li ñu def ne Pape Modou def na lu raw loolu Jurbel Pape Modou Fall nga tëkkante kii bi de moom moom rek laa koy tëkkante de woo àggaguma ci ay ministre ab directeur national laa la jox directeur national laa la jox de demuma ci ministre demuma ci directeur général demuma ci président de la république <laughs> ndax it bul fàtte ni réew mii ñu nekk nii tey lépp loo xam ne tey euh, doxal nañ ba jot réew mooma muy toog ñu toog nekk ci pouvoir loolu lépp lu mu jaral Ousmane Sonko ak Yewwi Askan Wi pour mu yàq loolu dana nu jaral lu ko raw nañu def seeni testament force reste à damay ñaan suñu mbokki affaire yi na ñëpp def ni man ni ma def Jurbel noo def ni ma def nit ñi def ko Jurbel du am ma ci benn sens interdit du ma ci may kenn am fa dogal moom d' accord bu la neexee dafa installé wu déggoo li ma la am fa doole déggoo li ma la lu tax gañe woon élection yi législative mais local ñoo ko lu tax gañe local yi suñu division moo nu ko may jaar naa fee keneen jaar fee keneen jaar fee ñu divisé wu on a une seule candidat et unique candidat qui s' appelle président de Macky Sall ñun ñu ci des ñëpp dana wax foofu nag local yi sax ñoom kanu yàgg kanu àndaloon ñoom daf <laughs> yéen ngeen sofantal ko sampoon dàmm kooku moo ñëwaat ànd ak yéen sauver leen si législative yi muy monsieur le maire. d' accord honorable député Malick Fall accord kon du yéen de toute façon de toute façon la amoon ca législative dama nekk ci question bi nga ma da nga da question ndax. Mm, mm. yaa ngi may wax ci Yewwi Askan Wi dugalaat nga beneen question. Mm. may wax ci mbiru Yewwi Askan Wi. duñu suñuy duñ seen i ndawle ñu ñoo nelaw xam nga. li wolof naan ku sa gémmiñ di nàcc doo wax jàmm moom moo leen jot. amul benn rajo bu ñuy toog di ñuy atta di attaqué li moom dañu am lu ñu lu ne weng loo xam ne nañu dem lijjanti loolu ba pare ma jàpp ne tey lépp loo xam ne war na leen pour ñuy yàq réew mi rek ñun danañ taxaw pour défendre loola. voilà bu fekkente ni jàmm Sénégal mi ngi wekku si teg lépp si suuf est-ce que président au lieu mu sacrifier des vie du dawal sagesse puisque moom jeexal na te nee na waratul dem mu génn génn bu rafet wala. la dégguma question bi de honorable uh-huh. une sortie honorable bu mm-hmm. fekkente ni lépp si loxoom la mm-hmm. bu fekkente ni moom mm-hmm. dossier bii nga xam ni ñu wax ni moo war a taal réew mi ñenn ñi wax ko moom si moom la dépendre pour war mën si teg kuddam comme ni mu ko waxee woon teg kuddam Sénégal avancé. mais dossier bi élection moom moom moom bañ a bokk. dossier bi dépend dossier bi dépendre ci moom. benn ci li nga njëkk wax dose bi dépendre ci moom. man dama contre ñu naan dossier bi sax Macky Sall mi ngi ci biir ak ay nit a ngi ci biir ak déedéet dossier bi ñaari citoyen sénégalais ñoo jote kenn ki yóbbu nit ki ca yoon nañu bàyyi yoon lu ca dogal ñu xam ne loolu la ndax it tey kenn ku ne ci gis na ne bari na ci ñun ci tuumaal ñoo xam ne su ñu génnee wax rek nit ñi dinañ xam lu leer que lii kat ñuy wax ay sos kese la au contraire ñoom ñoo dugal dose bi ci seen politique ci ñoom. Yewwi Askan Wi ak Ousmane Sonko moo dugal dossier bi ci moo ci politique parce que nit nan lay dikkee ne la danga maa sàkku danga maa def lii nga génn ne ah lii de diw ak diw moo ma tuumaal diw moo mee la tuumaal daa tànk say loxo dël la yóbbu la ba ca biir ba ca biir ba ba fan la tuumaale mais il faut que nit ñi réfléchir xalaat beneen bi ci des dana bokk ak du bokk ñun suñu candidat président Macky Sall la du genre explication bi de. non Faraa yem si woon de. <laughs> déedéet déedéet non da nga ma wax ne ma ndax. ndax moom pare na du du bokk. Ah, loolu moom waxal ñu ko moom du bokk. xam naa moom ñun mooy suñu candidat. président Macky Sall. waaye moom waxagul. dégg li ma la moom la concerné. su ko neexee mu ne man kat dama naan tekk ñun lenn rek la ñuy sàkku ci moom bu déposé jotee na dem déposé. voilà ni ndigal nga dëkk nag foofu la ñuy dajee. la ma fay sa taxawaay si politique ñu gis nag local yi def nga fa effort yu am solo je pense que yaa yaa doon deuxième bi ah. waaye effectivement. yow say conseillers. Mm-hmm. da nga leen indi si benno mais samay conseil ci décision yi nga xam ne président de la république ñu ngi koy doxal. Ah. ndax nag du nu opposition. ñaata conseil nga amoon jàmbaar nga woon ñun amoon nañ presque amoon nañ presque douze conseillers. yow maanaam nga ko foofu. Ah, pourquoi eh, maa jël eh. deuxième. def nga fa campagne te li ma bu baax. li ma waaj a rawee matut matut matut. san voix la cent voix la ma rawee. te yaa ngi wax naan dafa am fraude sax. bu baax a baax a baax a baax man <laughs> askanu nit ñi man lañ àndal askan way résider nit hmm. nga xam ne biir nit ñi la ñu dëkk Mara Diop la ñu àndal. comment fekk fait que Cheikh Seck politique fekk Senghor Abdou Diouf fekk tous les résimes nga ñëw bëgg ko sonal mënoo topp si ginnaaw ngeen liggéey. ndax moom waajur la si yow. man en quelque sorte. man président Macky Sall bu ngeen boole seen loxo bu ngeen boole seen doole rek yéen kenn leen ah, keneen ak keneen ak keneen leen l'intérêt de Ndindi dama ko gis ci wetu président Macky Sall. mais nag bu ñu àggee ci élection locale. Hmm. damay sàkk Ndindi ñu bàyyee leen ak seen bopp. ku nu décidé nag kooku rek kooku la. le courant passé ak moo am ngeen. am non mais amuñu amuñu jafe-jafe amuñu jafe-jafe boo xam ne nii tey. mais nag a un problème politique. léegi say conseil say conseil ñoom nu nu nu non suñu su taxawalu loo xam ne nii l' intérêt président jotee dañ koy def mais fa ngeen budget loo xam ne l' intérêt di taxaw na dañ koy def bi session yi commencé ba am leen benn problème amuñu benn problème am nañu tuuti benn problème boo xam ne je pense que ne danañu ko jàll muy ndax dissoudre nañ li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy bureau conseil municipal bi mm-hmm. loolu dinañu ko jàll ba tey it aussi amuñu problème boo xam ne nii jàpp naa ne war nañu mën a indil yenn jafe-jafe yi au niveau. Mara ma yow Mara yow nekkoo conseil. non nekkuma conseil parce que ma maa jiite woon liste bi nga nekkoon majoritaire mm. voilà lan mooy sa mbëbët si Ndindi parce que gis naa ni nekk nga gox boo bëgg. jeunesse ba nag jeunesse ba jeunesse Ndindi dafa nekk jeunesse bu bu bu bu yëngu. sport culture bari aussi euh, ay étudiants vraiment mu nekk dëkk bu doox bu bu xumb yow nga doon jeune tey jii. Euh, lan mooy sa mbëbët si ñoom. Euh, lii suñu mbébét ci ñoom je pense que président Macky Sall mi ngi ñu ci jàppale bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ñu di ko ci remercier au passage parce que ndindi ga woon. Mm-hmm. tey boo dikkaatee ndindi. Mm-hmm. da ngay jàpp ne beneen ndindi nga nekk. ndax booy dugg ndindi rek da ngay mel ni yaa ngi biir jam ñaajo nga gis centre de formation professionnelle. Dubaï nga waaw effectivement da ngay mel ni da nga nekk Dubaï comme ni ko mon ami Massaly <laughs> waxee. nga gis centre de formation nga gis brigade yu bees nga gis ay hôpitaux euh, ay dispensaire ay ay district sanitaire ñun ay case de santé ak dispensaire la ñu amoon ren ñu ngi ci ay district sanitaire ay hmm. daara moderne stade yooyu yëpp ngay gis ko ne mi ngi ndindi ñu ngi mi ngi en ndindi mi ngi en phase de développement di dem ran-ran bi nga xam ne tey dañu ko doon jàmbat hmm. béton bu ñuul bi sotti nañ ko ñu ngi ko commencé goudronné depuis cinquante ans depuis cinquante ans ci vision président Macky Sall non mais mais Macky Sall lañ doon xaar léegi nag ki nga xam ne mu ngi ñuy defal loolu forage yi nga xam ne ñun dañ doon am problème mu ndox dëgg la problème mu ndox mi manqué na ba tey dafa am def dafa des waaye nag tey lañu ñu mën a gën a amal solo mooy que gis nañ ne président Macky Sall defal nañu ci loo xam ne kawe na suñu njort kawe suñu njort googu nag moo tax ba lépp loo xam ne bëgg na ko ndindi ak arrondissement bi dinañu ànd ak moom. foofu moo amul opposant opposant bu fa jaar nag ñu def la noonu rek nañ daa wax moom amut sax ma dem te ñëw. mais Yewwi mi ngi fi am doole dinañ. ma amu fa benn doole bu fa amoon doole dinañ dinañ gis benn dinañ gis boppam Yewwi ay deux conseils lañ fay am ay deux conseils lañ fay am donc y a des choses xam ne. Euh, am na ci foo xam ne buñ fa yeggee jàpp naa ne président Macky Sall nañ xool yeneen. voilà conseil économique social environnemental. beneen posture boo xam te ni tey war nga war a gën a mën a liggéey au delà même Nindi. Mhm. mais région de Diourbel parce que doomu région bi nga. Mhm. tey yéen bëbën nga am aussi pour la région de Diourbel. ah dëgg la conseil économique et social donc barab la boo xam ne donc la nga fa war a wax lu général la luy intéressé population Sénégal bépp la. Mhm. du caageenu que ne. gox gox ak gox la déedéet. man nga am opportunité boo xam ne ne nag da nga ci mën a jàppale sab bu baax. waaye nag question yaa ñu fay wax muy wàllu sa muy wàllu économique wàllu social wàllu environnement lépp loo xam ne lu cee kii la rek population bi yëpp lay lay lay concerné incha allah rabbi président am na confiance pour dugal ñu ci la ñu ca war mooy ak fa suñu gis-gis tam foofa mooy lépp loo xam ne jàpp nañ ne pour njariñu réew mi rek dana nu ko apporter Sénégal nu ko apporter région de Diourbel waaye nag dina particulièrement danañ ci apporter commune enfin un message pour la jeunesse sénégalaise parce que euh, vous êtes mais yàgg nga dugg ci biir mag yu de déroule état yàgg ci am nombal tànk expérience bi moo ngi fii tey nag bari na jeunes yoo doon dañu laissé en rade ñàkk nañu espoir bu nee ba jeune Sénégal bi ñeen naan damay def testament pour xeex pour tey kon espoir am na ngeen bañ leen comprendre si xëy na noonu ñuy waxee mais ngeen comprendre lu nekk ci ginnaaw lii tey boo doon lancé message pour suñu frères yi yi war a génn di xeex ak yooyu loo leen di wax. li ma ciy lancé un appel mooy. damay fier bu ma gisee yenn ndaw ñu nga xam ne nii tey ku ci mel ni am na mbër mu ma gis ci ci réseaux sociaux yi. Siteu Siteu muy porteur de voix mu jàmmaarloog askan wi wax leen lii réalité bi loolu dafa am solo gis nga nit bu amee kàddu war a wax ñu déglu la bu wax jotee waxal ñu déglu la parce que it man président Macky Sall du ma jëlloo xeer di ma ko sànniloo sama askan. su ma ko defaatoon ma siggi waxoolaat ko ne ko président xoolal ni ngay def tey boo yoree boo boo amee intention bëgg a jiiteem réew na xam ne la ngay def askan wi ëllëg ki si biir dinañ la ko def waaye nag xoolal ne ndaw ñii tey bu leen sacrifier ngir sa benn bëgg-bëgg bopp waaye bu leen sacrifier ngir sa benn xalaat-xalaatu bopp day doon lu am solo jeunes yi nañu toogaat xalaat réfléchir réfléchiraat dama gis benn image boo xam ne dafa war a yee ñu bari je pense que bi ñuy tëgg ay bool doomu Ousmane Sonko dafa génn di tëgg boy yi dugalaat ko ci biir force de l'ordre bi dugalaat ko ci biir donc moo kooku moom ma ngay sàmm doomam donc kon yeneen doomi jàmbur yi nga xam ne seeni parents ñi ngi ci biir kër yi seeni wayjur ñi ngi ci biir kër yi nanu xippiwaat xoolaat seeni doom ne leen nañ xoolaat ci baax image yooyu tey dama jàpp ne bépp ndaw boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi na nga xool ne ki nga xam ne dafa tëral MSDC ba amatu doole bu mu yëngutoo ak leneen mënut sëfatut muy taxaw di wax force reste la à la loi te lu mu jaral ay nit pour ñu yàq ko dina jaral état balay état jóg nag population bi ñu ci bëri dinañ jóg ñi nga xam ne dañoo bokk gis-gis ak état dinañ jóg arrêté loolu. merci beaucoup maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier ñëpp di wax ne suñu candidat on a une seule et unique candidat c'est le président Macky je vous remercie. mbokk yi jox leen ndaje ba nañu yoon si yeneen jotaay xibaar entretien la woon ak honorable a Diop conseil économique social et environnemental nekk si Ndindy merci.